ma ne ko baan yow munoo wax yow. waaw yow baan yow munoo wax mais di ziar euh, Ndiaye di ziar euh, Sénégalais yeeg ñëpp rek di ak ñi ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ñu leen di ñaanal jàmm. Mm-hmm. te di ko sàkk ci ñoom di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan ci biir kër yi di ko ñaan ci xel yi di ko ñaan ci xel yi. Mm-hmm. yàlla muy yàlla muy borom jàmm yàlla yàlla defal ñëpp jàmm. def ko ci ci réew mi fépp rek di sant bu baax a baax a euh, di la di la ziar bu baax a baax. waaw di ziar Ndiaye di ziar l'homme fort de Ngaabu mm-hmm. auditeur u xalaas yi euh, am na ci ñoo xam ne vraiment tuuti tuut tuut ñu dóor ma wala ñu dóor ma yée da ngeen a war a xalaas laa wax xalaas dafa war a am samedi ak dimanche sax ngeen nekk fii di tëbal rek waa xam nga mais nag xam nga euh, appel bee taxoon ñëw ñu ak euh, yi fi xew yëpp waaw di ji jàll nag sunu papa coon mm, wax mm. dëgg yàlla wax dëgg yàlla génn àdduna am réewum lëmm wala la lëmm ñëpp di la ñaanal mm. wax dëgg yàlla yombul kon bokk ñu koy ñaanal di ko di ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ko yàlla euh, teg ci loxo bu baax a baax a baax a baax parce que Sénégal gépp ñàkk waaw wax dëgg yàlla def na mission def na li nga xam ne moo ko waroon jóge fi euh, ñu fi bàyyi yàlla nañu continuer li nga xam ne moom la fi bàyyi waaw Ndiaye maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar bu baax a Babacar mhm. ah, maa ngi euh, nuyu inspecteur maa ngi mhm. lay nuyu maa ngi nuyu waa Sénégal mhm. di jéggalu ñëpp nag ci xam nga fan yi ñu toog gisuñu xalaas. xam nga rek programme bi moo ni tëdde woon. Mhm. fi mu daanelee foofa foofa laay dem mu di jaale waa Sénégal gi yëpp. laata mhm. sax may may jaale suñu papa Thione Seck mais waa Sénégal déjà laa koy jaale. Mhm. ak fu ñu mën di nekk. xam nga moom euh, nitu réew mi la woon. donc la woon drapeau la woon mais également. Euh, il va beaucoup nous manquer. Mm les plans nag. donc euh, jaale ko jaale ko jaale ko ñëpp. fa mu fa mu jëm yàlla na ko gënal foofu fi mu jógee. amiin amiin amiin eh, njaboot gi mu fi bàyyi ni ko ni ko baan waxee. Mm-hmm. yàlla na ci yàlla teg loxo. sàmmal leen boppam. lépp loo xamante ne ji moom papa Thion bëggoon na ko ci ci njabootam ginnaawam. yàlla sunu borom matal ko. amiin amiin amiin loolu moom lañ leen di ñaan ñu gudd fan am wéra ah. donc loolu lañ leen di ñaanal. amiin amiin eh, jéggalu partenaires yi également. Mm-hmm. nga xamante ne ñoom boobu ba léegi ñoom it ndeysaan ñu gore lañu. amul mm-hmm. kenn ku la ci wane la lu tax tey xalaas amul. te ñu yàgg gunge xalaas établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère yi nga xamante ne ji ñoo indee gaamu vite fait ñoo fàttali ko auditeurs yi fàttali ko waa Sénégal fàttali ko askan fu ñu mën di nekk vite fait gaam la boo xamante ne ji dañoo njëkkandi cuuraayu bant buy dàq yoo ba pare nag ànd ak xet gu neex nga xamante ne ji xale mën na ko noy mag mën na ko noy fu mu tàkk yoo du fa am te dafay bàyyi xet bu neex mhm. yamuñu ci ñoon di benn pompe boo xamant ne insecticide bu ay ci ak weñ ba ci yoo Euh, pâte dentifrice vite fait boo xamante ne jii day sàmm say bëñ di ko weexal di ko wéral ba noppi di la bàyyi xeetu gémmiñ bu neex mm-hmm. mu ànd ak brosse à dents vite fait am ci format souple médium wala dur boo ci bëgg rek mm-hmm. euh, yamuñ ci dañoo indi frotter vite fait ngir yaram buy metti di defaraat seen forme mais également sa ay muscles di ko noddanti am na pommade am na tube euh, muy frotter vite fait foo dem ci Sénégal mm. boutique boo dem grande surface boo dem laajteel frotter vite fait établissement waa kër Serigne Touba Fall frère yi ko fi indi ngeen mën leen a jote ci 77 555 11 11 77 696 34 67 77 600 441 06 38 beneen partenaire bu ñu àndal ci xalaas moo di saabu Fanico saabu bi mën te gën noonu lañ ko tuddee ci réew mi ndax dafay setal ba pare di bàyyi xet bu neex sakkan na am na bu mag am na bu ndaw euh, boutique boo dem mën nga ko am ci réew mi euh, marché wala grande surface boo dem te it conservation muy ni ñu ko denc emballage bi rek tax na ñu bëri wóolu ko ndax dafay dal seen xel. Mhm. beneen partenaire mu di Baara musoo noppal jigéen la ko tuddee produit 100 pour cent naturel euh, lépp loo xamante ne jigéen dañ koy soxla ngir togg. boom la baara musa indi def ko am poudre def ko ci ay sachet ngir tàggale leen ak ah, dëbb ak yu ni lu ci mel ne muscade poivre nettetu l'ail laurier moutarde piment simple wala piment aromatisé ba ci gingembre am na en poudre ci baaramuso euh, condition hygiène yu yu mucc ayib mais également produit baaramuso yi marché bu ngeen dem wala boutique bu ngeen dem mën ngeen ko fa fekk muy revendeur détaillant wala ku bëgg a def sa commande da ngay woote 77 438 38 85 77 289 11 35 comptoir commercial de plomberie du Sénégal lay jeexale spécialiste ci wàllu sanitaire fii ci ci réew mi ay salle de bain de dernier cri sanitaire en couleur ay lavabo en couleur yemuñu ca wàllu tuyauterie ak plomberie tegal seen loxo ñoom comptoir commercial de plomberie du Sénégal euh, lu aju ci euh, irrigation matériel irrigation lu am solo la ñu liggéey. Mhm. borom tool yeeg béykat xam nañu ko. Mhm. rue Valmy angle Ngalandou Diouf fa la nekk wala rue Floris angle Grasland wala rue Tolbiac angle Faidherbe comptoir commercial de plomberie du Sénégal 33 821 foofu ba naan heure baa ngi dem. heure ba nekk ca Saint-Louis nañu ciy bàyyi xel ñu ngi ma koy wax ni ci SMS yi. ci mm. euh, commentaire yi ni que mat na un mois. Mm. mu gëj a dox bu doon may partenaires yi. Mm. Ndiaye dañu ñuy yóbbu ci yoon. ah euh, nit ñi ñu recommencé waat seen ay sponsoring un mois parce que ñoom un mois lañ jëloon waxuñu. dog dogee waxuñu mi-temps waxuñu xaaj bu doon may partenaires yi damay ni conseil ñu yóbbu ñu ci yoon. waaw déet non ñu commencé waat déet à zéro ay aba ay aba daal loolu laa conseil mel nii nga mel nii aba <laughs> non dama bëgg nga remercier ma benn fondation bu ñu wax def te yàlla tax mhm. dañoo dugal un million de kaamilu alxuraan fii ci senegal mhm. di ko yóbbu ci këru diine yi ak daara yi man ñu woo ma ànd ak man may ma cinq cinq cent kaamilu alxuraan ñu yóbbu ko piir jox ko daara ya ak ña nga xam ñooy yëngu ci diine ja euh, ku ñuy wax joor Fall ci États-Unis ànd ceeg ku ñuy wax Baara njaay fii loolu lu ñuy saluer la voilà un million de kaamil nga dugal ko Sénégal. am na solo loolu am na solo. yooyu noonu moom jar nañu. jar nañu xalif général di tamit li mu def na solo. waaw am réew boo ci nekkee nekk kilifa li mu defat li mu defat li mu defat yal na ko fi yàlla bàyyi mu ànd ak wér ak yëpp. di jaal nag ñi nga xam ne dañoo faatu. ci ci ci mm-hmm. événement yi. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne dañ cee blessé wu. yal na jàmm yàlla euh, accident boobu nga xam ne moom moo blessé wu te bokk gendarmerie. te mm-hmm. nekkoon GIGN ci loxo bi. am na benn vidéo buy circulé benn xale nekk ci nan di wax mel ni moom doomu adjudant bi la defe naa ne gis ngeen ko. Mhm. benn xale bu naan te xaw ma euh, euh, président bi moo lakk sama loxo papa ak nangu xale bu xees nii. xale bu jigéen bu ñu koy mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi nee nañu que ni doomu doomu euh, élément GIGN bi la. élément GIGN bi jurul xale bi xamul xale bi ni ko ñëpp gisee la ko gisee pour nit ñi xam ne loolu fake news yi la xale bi du doomu. Euh, élément GIE. na jàmm yàlla blessé wu ci loolu pour pour leeral rek. yàlla na jàmm yàlla très important pour leeral pour mu mu leer xam naa ne gendarmerie dina ci def communiqué. Mhm. wala moom ci boppam mu def ci mu def ci démenti. njaay ñu doxantu ba ngaay mexe. Mhm. mel na waaw am na benn euh, xam naa ni yéen ko doon dégg xaw ma bon am na peut-être am na ñu ko bind mais benn jànq. mu doon liggéey ci benn kër. ka mu doon liggéeyal dóor ko ba mu dee. Hmm? waaw ka mu doon liggéeyal. góor la wala patron. jigéen la ah, patron bi. waaw bon la benn bon la. waaw ma kan moo ko dóor. patron wala patron patronam. ah d'accord moo ko dóor ba mu faatu. dóor ba mu dee ba mu dee. léegi nag li ci neex mooy pap bi ñu woo neexul nag ba li li déet papa ji ah. pa bi nga xam ne moo jur xale bi ñu ko ko waxee uh-huh. moom dara gisul dara lu dul jël xale bi rek yóbbu Tuubaa jéggal jébbal ko boromam woo ko mi ngi mais bi ko di jaayee xale bu jigéen bi faatu yégee dañu papa ji soo leen ko yóbboo suul ko te defuñu autopsie ba mu leer képp ku ko suul naa la porter plainte Hmm. ndijaay jooju maanaam waa ji jur xale muy paa bi paa bi bu ñu ko waxee ne ko sa doom dee na waaw jël yóbbu Touba la xalaat waaw waaw xam nga xam nga wër nañ ko ni ko ndogalu yàlla laak nangam rek waar koo waar ba paa bi moom jël ko rek jébbal ko boromam la bëggoon a def rek ndijaay ñu ñëw taxaw ci ni il faut ñu to autopsie ko xam lan moo ko rey bala ñu koy jébbal boromam sinon ku ko suul te ñëwuñu régler loolu dinaa la porter plainte. baadu autopsie bi moo feeñal ne dañ koo dóor ba mu dee. déedéet autopsie bi. xale bi maanaam certificat de genre de mort bi. la waaw moo feeñal ay moo feeñal lépp waaw. ba waa ndaw su ko def loolu jàpp nañ ko ba defee rek. ngay waaw. déglu déglu. yow yaay ndijaayu xale bi jigéen bi ñu dégg ñi dañ koo faat ca ngaay mexe mbir moomee nu mu demee. mbir mi ni mu demee. doy na waar torop. yéegi ne dayo torop ndax tamit lu bette la. ndax xale bi. nu mu ngi tudd Awa Cissé la xale bi 17 ans la am doon liggéeyee Dakar maanaam kër gi doon liggéeyee bi mu ñoo moom sama rakk la ci jokku te moo ko am tuuti papa xale bu woo ma ni ma ah, nañ ñu kayit duñ ko war a wax nañ ma ne ma da ngay topp wala da topp mën leen ma topp ma wax moo tax man leen woon ma ci benn dogal ma jógee fii jël si kalandoo dem yaar kaat bi jël beneen ndigaayam bu ñuy wax naar siise ñu toog paa bi wax li ma mu ne mu ne mu ne mu ne ko yéen ba su léegu ko déedéet ay ndigaayam laa doon xaar léegi leen laa bëgg man certificat de genre bi wala rapport autopsie bi di wane ne xale bi anam bii ak anam ko rayee loolu laa soxla mun ma non a anam man tam ma daal dem hôpital xam nga ñoom enveloppe bi ñu ma jox dañ koy bind remettre remettre au docteur après ma daaj daaj ma ko nag damaa dem mu ñëw ma jox ko ko da ngay da ngay yow da ngaa jël si néew wala la mën na ko mën na ko mën na ko soxna si. man certificat genre de mort bi laa soxla. soxla pour xam xale bi ban heure la dee heure ban lañ ko rey ak ban anam lañ ko rey. boobu ana papaam. boobu papaam ñoo ànd. maanaam bi nag bi ma expliqué moom xaw na da ci foofu ci ni mu demee dalal na sama xel parce nee na ma papay booy bii. moo ñëw ni moom daa soxla koor bi tey tey su ci mënoon da bi moo soxla loolu ci famille bi ma ne ko papaam bi ko man digal a dem nañ bàyyi ba lundi ko ne ndax ma demee commandant ma ko man dama commandant bi ni ma ni ma lii jërul def autopsie parce que parce que fekkoon dañuy def autopsie dañ naan ku xam ne xamuñu lu ko rey waaye kii xam nañ li ko rey. waaye xam na nañ li ko rey xam nañ ci ko rey. waaw li ko rey lan la. waaw li ko rey yat la ko dóor. yat la ko dóor yat la ko dóor. ca kër ga mu doon liggéeyee. ca kër ga mu doon liggéey yat la ko dóor dóor ko yatu ñett ci yoon mu faatu. ñu ci bari nee yàgg na yàgg nay dóor xale bi. ah moom la doon liggéey yàgg waaw moom la doon liggéey yàgg na ko torturé. jànqam daal jànqam daal la rey la jànqam la waaw jànqam la waaw mbindaanam la rey mbindaanam la rey jànqam la rey da nga xam daal la rey jigéen moo def loolu jigéen bi ñuy wax Ngone Fall dëkk fan Ngone Fall man ndax xam naa ne daal ngaay ngaay laa ko xam waaye xam ma fu mu dëkk maanaam ngaay daal fa la fa la fa lay sëy ana jëkkëram jëkkëram Italie la nekk ana mu moom léegi moom instant bi nii yóbbu nañ ko defere ko ndaw si defere nañ ko waaye nag dama bëgg ñu maanaam ñu dox ñu doxal ci dëgg yoon li war li waral koy teg ñu teg kooku pression bi xam ne moom laa ci def nii moo tax moo waral lu ci bëree bëree bëree bëree bëri pression bëri am ci ba mu toll ba dossier bi toll fii mais si la ko suul nañ xale bu yàgg yàgga yàgga yàgg RFM daal maam moo dal suñu xel ci ñun jàllale suñu xibaar foofu ñun soxlawuñu benn dërëm soxlawuñu un franc ñu liñ soxla mooy yoon def li yoon def liggéey juste def liggéeyam ci la ko gëm yàlla rek dem denc noonu waaw waaw waaw après xam nga papa ji ay donga yàlla bu dogal nii nii nii xam nga expliqué moom moom mu daa dem gaana ma ni ko man daal li ma bëgg mooy sama doom na ma ci mën a gaaw a jote rek dem suuli ko waaw ku am ku am kër kër kër baay am na kër ndey parce que léegi li tax ci réew mooy nit bu lay liggéeyal da nga yaakaar kii daa torox wala amuti mbokk li li li naan li naan maanaam dëkk boo dem dëkk boo dem jamono moo tax dëkk boo dem ña ña ña ña ña ña ña xam ne si daan dimbali seeni baay léegi ñooy dimbali waate moo tax nag fuuy bari ci réew mi léegi loolu moo yàq réew mi léegi boo amee boo am jàng doo ko fonk doo ko respecté xalaas mbir maa ngi noonu ndijaayam moom moo topp mbir mi ba mu leer ba ñu defeer ndaw si nee na nag ñu dara lu dul yoon def liggéeyam defe naa ni yoon a nga ca. mais léegi ñoom bu dégguma ko mu wax ko xëy na nga xam ci dara lu indi histoire bi lu tax mu dóor ko lan lañ jotee. xam nga ñàkkul histoire kër la ay nit jigéen suñu dëkkee yéen du ñàkk des hauts et des bas xam naa rek mu dóor ko yat daal dàpp ci information yi yor cause blessure volontaire la. voilà ba mu faatu. xale bu am 17 ans. moo tax gis nga Aba yenn bëre yi. Hmm. nañ koy moytu nit ñaa ngi dox may ay kër ay ay néew yu dox lañ. Hmm. ku ci soo sooxaalewul feebar. Hmm. stress nga stress goo xamante ne. àtte xeex sax wóorul. daf dara dara xew ci àdduna bi la kenn xamul lan la. wallaahi àtte xeex sax wóorul. da ngay àtte xeex kurpañ rëcc dal la. fekk nga yam baa ñu jum jëm la paat paak. wóorul lenn wóoratul fi ñu toll nii. <laughs> cey njaay daaraa yàlla rek la ñuy xëy di ko dénk suñu bopp rek. ah lekk sax njaay dafa wóoratul lekk. Mm, foog nga ci def dee. dara wóoratul il faut ñu lekk nag. waaw mais loolu laay wax nii rek dara wóoratul ñu li ñuy def yëpp wóoratul. wax nañ ñaan jàmm rek. billaahi ñaan jàmm rek yëmbal benn paa buy jàpp. teg ba jàpp ba yegg ci tànk yi. Mm-hmm. fa la yem. xoolal loolu ah. fa waroon a foofu la matale. xoolal loolu. fa la fa la waroon a yem léegi mooy moytu gi ngay wax rek. <laughs> xam nga kii nii ñu ne moo dóor bon bi yat mu faatu ba téye ko defee rek. waaw nga caaxaan du ko génne fa mu nekk. waaw parce que lay doon. Mhm. kenn ka faatu na kooku du wax. Mhm. moom moo ci des. Mhm. le temps que ñu koy téye nekk ci enquête bi yéegal wàcc lu mu bon bon bon bon. dana ah. fa defub diir. comme ah. moo rey moom du neex a wax du neex mu yomb. wax loo xam ni du yomb li jënti de. wallaahi du yomb li jënti de. te nee na waa ji nee na soo gisee mu wax ci rajo bi day bañ ñu ni ndaw sa daa dof waaw nga tey ku fi def benn affaire rek tam ñu wutal la. xoolal xoolal Ndiaye li bandi inditi ci hmm. àdduna bu jeex bi. Ah, waaye Ndiaye de daan nangu doon xool yi. kii lan lañ ko def kort. xale bu waa ji wa waa ji ñuy waaj a teg. moom ci li ma wax. Hmm. neen dafa amoon jabar. mu bett jabar ji ba tàyyi ak keneen. kam betteel jabar ji kooku noonu. Hmm. ak jabar ji ci ay waxam. ñoom ñaar ñoo def coalition. liggéey ko kort ko. gis nga waa ji li mel. gis nga yaram bi ni mu mel. Mhm. waaye su tëflee ay mbuus lay génne. ay mbóot ay gunóor. ay deret waa ji li muy génne ci gémmiñ gi kenn mënu koo xool yaram waa ji rek laa wax kenn mënu koo xool waaye déglul waa ji premier partie. mosoon naa la yónni sama benn fait divers en 2017. maanaam suma diggante sama benn soxna bu ma tàggoo woon te doon njalo njalo wu nga doon ko xalaas demoon nga ba nga ne da koy def thème de la semaine gis nga image yi ëpp na di waaye bañ a occuper sa sa mémoire moo tax ma yemale ko fii rek. bandement foofu te it kon ni ma la ko wax ci njëlbeen rek ndax soo sa keroog mi nga xamante ne la tàggoo muy dem mu ne ma nga ni di dem waaye fii ba déwén bu dara ngeen génnu ci yow xamal ne man mi sant ma ma bëgg nag sant boobu nga denc ko. ma ne ko ma jël yàlla. baan comme ni ma la ko waxoon ci bu njëkk ba rek. ab ma ko doon doxoon nga jégal ma loolu mu doon ma liggéey ba ñëw France ma nekk kër ma ko dàqee jaasi bi ñu te dafa tënk miir a dugg seen biir kër. kon nag ñaar ñooñu ku ko seq ak ñoom yaa ngi ci danger 2017 2018 2019 ba 2020 maanaam au mois de mars 2020 dal début mars boobu tam wax nañu waxu corona bi benn bés laa gont liggéey sama catu baaraam yi commencé di ma xasan moom luy mel luy dox ci biir ma a waaw ma ne man sama baaraam yi lan mooy dox ci biir sama biir baaraam yi ma raxasu ba set ak eau de javel ak euh, euh, euh, madaar waaye dara mu continué rek. yëf yi di yéeg ndànk nag mooy xasanu di xasanu di xasanu di ko def fu caaxaan ba nawet bi dugg bi nawet bi duggee ba bul fekkee amul docteur ma dawal biir Kaolack ñu dawal ba mois d'octobre yëf yi gën a takkarnaase novembre décembre ma jël sama congé congé bépp dama ko tëdd gis nga imagine yi mel wóor na yàlla gën ñàkk ci rasulullahi billahi wallahi taalaahi su ma bokkatoo gunóor yooyu nga gis noonu yooyu ñooy gën sama biir yaram du ma nanoo guddi du ma mënuma lekk mënuma naan ba ma joxe ndox day mel ni comme saabu lekk soo ma ko joxe dama ko bëgg a tuur parce que dara du ma tënk am amul benn goût dañuy toog pour dem jënd ay soosu euh, euh, euh, aromage yooyu ñëw sotti ko ci mais dara boo tiimoon kilo pot kilo xorom da ko ci ceeb bi du tax mu sax ci man son naa lool un naa ci man un naa ferme ñu naan allergie la allergie la allergie la allergie la di ci kër gi yëpp ay nañ ko nit ñi di leen seeri doon di looy ba leen lii bu leen togg jën bu leen def nii duma lekk jën duma lekk yàpp duma lekk ñam bi deg di ma nga xamante ne ne korte la boobu temps sonn naa trop bii mois de janvier ay nit xamal ma ne ma lii korte la ñetti nit ma door a xamante ne lii korte la korte bu bu doy waar bu salte ay morceau la ay morceau mbuus ay lëng yooyu mu ngi mel la nga géej koo bale lëng yooyu fay ne yooyu ñooy génn sama biir yaram billahi wallahi tallahi la wax dëgg kenn mun laa wax ne yi fi naka la ay plastique mbuus lu ne gis nga cheveux boobu nga gis nga gis noonu li ci li ci tàll yëpp fan yi fanaa toll fan yi ndaxte dafa am dafa am ku ma nekkal su ma saqatee saqat saqat saqat saqat saqat saqat saqat su ma tuutlitee mbuus yooyu ñooy génn yooyu yëpp mbuus la loolu yëpp mbuus la li ci kaw na ma moon lépp loolu muy toppi toppi bu ndaw nen la gis nga ni de sama baat bi am na foo xamante ne sama baat nañu koo ñaas gunóor yoo xamante ne kenn mënu la wax naka la façon bu ne nag. su fi xajee ñu continuer su xajee rek ñu continuer. xajul euh, déet a allo président Sablaye. Ah, su fi xajee rek ñu continuer parce que. waa ji li mu wax bari na. te li ko hmm. <laughs> jàpp na gémmiñ gi en ku gis image yi gis image yi xam naa dinaa ko jox jaay mu dugal ko ci. ah xanaa dañ koy kii kay. waaw doy na waar de yàq xoolal li kii bi nee na àllaaxira dina métti trop. non non mais nag mënumaa bokk ak yéen émission yi ba pare li may yor. Mhm. man dong ma ko yor. dinaa leen ko séddale envoyé ngeen xool ko parce que non ko xool. ban de mënu leen a xool. léegi déedéet ñoo la ko jéggal yónnee naa la ci woon naa la. laay du ma xool te boo continuer ma bloqué. waa léegi waxal loo gis. mënuma ko wax ban. ban man ku man man ban faible la man. man man ci biir bi rek laa yem. man ku oy xool la biir bi rek ci laa mm-hmm. Mm-hmm. gis na gunóor yi. li may waxatee ngi nii. ak deret gi. dañuy nekki waaye waxtu fajar lañ toog. dañ jëm allo présidence. à République président ci ko doon fay Colobane ak Sandaga résidence de Victoria résidence de la République la résidence du président de la République nga xam mooy demeuré sur situé dans le quartier de Dakar la capitale israélienne construit en 1902 oui sax nga xam maa yàgg laay la la mu nekk la résidence officielle du gouverneur général Afrique occidentale AOF les ports salariés Senghor Diar 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 ñu ngi am fi ñamaat ñu xaaran ba xam kii woote ba ko jot président de la République ko kaloroon fan la woon salaamaaleykum ay salaamaaleykum waaleykum salaam joxal tur beeg sant beeg fi ngay wootee président Yaya Jammeh ah yaaya am président Yaya Jammeh from Gambia. yaa lu waral sa woote ci uh, palais Sénégal bi. dama dama bëggoon a wax président Macky Sall. ambaar jàmm la waxal bu dikkee ñu jottali ko dafa génn. dafa génn. waaw dafa génn. dafa sori xam na. waaw waaw sori na nag. moom fu mu nekk da day dox rek. ah loolu nag dama wax dëgg yàlla dara leeruma ci dafa génn daal dafa génn. <laughs> de lan la doy ree. dama ko dee ree ba pare. ci <laughs> loo koy ree. nekkul ay kookali. lan la la waaye dafa nekk loo xam ne. waaw nit da ngaa dugal sa yoon nekka. nit dangay. xam nga ku jëlagul ku jëlagul ci géej. ah waroo leen reetaan ku lab. maanaam maanaam maanaam. ah moom gis na li nga xam ne moo daw Sénégal fan yii. waaw. yéen a leen ko de. Ah. waaye noonu ma demoon bu jéem a taxa su ma dikka. loolu doo ko moo wàllu si ci moom. dégg yow ma ne ma eh, moom moo la sa dëkk wala yow waa sa waa dëkk ñoo la ñoo la ñoo hey moom moo leen boot. moo mu jéem a daxa ah mu daxa ba man daxa suma jabar daxa suma njaboot ñun ñëpp ñu ngi génn di tol tolante aduna bi. eh xamoon ne ni lii dina ko daal. Ah, kon daal yow maanaam loolu yow Macky Sall nga ko jiiñ. moo moo ko def ay. moom moo ko de moo nekk seen gannaaw. Ah, yow da ngaa xam euh, kii bi da ngaa xam Sonko. ka Sonko am na amuma ko buga de. Ah. waaye gone gi ma buga la dama ko buga. eh ah. Sonko dama ko buga. ndax dama nekk ak gone patriote. xamali Sonko deret bi ma yor. hey moom la yore. jamaar bi ma doon. hey moom la doon. hey góor góor góorlu bi ma doon. moom la doon. so dama am doole de. akabaat ci ak ku nit bu yaram wuyu ba léegi. maa ngi laa dégg. léegi yow lan ngay ci président Macky Sall. bu ñëwee nee ko. waaw. yaa ye nee ko ñam na. la loolu rek ngay wax yow. waaw bu ko doon nee ko ñam na. nee ko ku ka tama ba tam tama la ko tama la. foo mën ci demit dika demit dika demit mani wuyu ma. laaw mani votre correspondant peut-être. man déggu ma man déggu ma xam nga li nga wax la. wuyu man di demin dika demin dika demin dika ñaan na. RFM. Radio Futur Média. 94 FM. Dakar. numéro 380 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mardi 16 mars 2021. Le ministère la Santé l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1116 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,91%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu cas contacts suivis par nos services. Aucun cas n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 47 cas de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme Dans la région de Dakar, nous avons 21 cas, dont 5 aux parcelles deux à Dakar Plateau, Wakam, Estefoire, Sacré-Cœur et Pikine, un à Guédiawaye, Grand Mbao Dans les régions, nous avons eu 26 cas dont 4 à Sakal et à Vélingara, à Diofior, Kédougou et Touba, à Kolda et Amour, à Kaolack, Khombol Louga Tambacounda et Thiès 278 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 50 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation trois décès ont été enregistrés ce lundi 15 mars 2021 l'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles est jugé stable À ce jour, 37 062 cas ont été déclarés positifs, dont 33 043 guéris, 981 décédés et donc 3 037 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients suivis dans nos services et à ceux qui euh, dans les domiciles. Le ministère la Santé l'Action sociale vous informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 139 118 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère la Santé l'Action sociale exhorte les populations au des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masque, bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains, le recours précoce aux structures de soins ou consulter un personnel de santé qualifié dès que vous sentez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 ci région yi am nañ ci ñaar fukk ak juróom-benn yu tëddee ni ñeent ci Sakal ak Belengara ñett ci Diofior Kédougou ak tuba ñaar ci Kolda ak Mbour benn ci Kaolack Xombol Louga Tamba ak Thiès ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett si malade ñu entré woon hôpital ak ñi xam ne ñu ngi woon ñu leen toppoon ci biir kër yi wéer nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukki malade ñoo nekk réanimation ñett malade ñàkk seen bakkan bu su démb altine fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom fukk ak ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñett ak ñeent fukk ak ñett wér nañ ci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 bañ a fàtte rendez-vous pour mun a tollanti deuxième dose mooy ñaareelu dose vaccination bi ministère la santé de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam docteur El Hadji Mamadou Ndiaye la woon doon ñu bilan bi ñu dégtal leen ko